alhamdulilah bi seetaan yi bisimilah rahmaani rahim ginnaaw ma sant yàlla bi si di sant sama ñaar waajur di sant sama yaay yàlla may ko fan gudd ak wér gu yaram bàyyi ko si kanam kanam kanam kanam kanam kanam di sant waa kër alxaaji Thiam Faye bu baax taw ba caar ba dalee élargi gaa yëpp waaw di sant sama mag Malick maa ngi fay am daal. waaw avant tout dama naan tur bi fan la jógee tur bu original nga fi indi quoi tur boo xam ne kenn amu ko ci làmb ji. dasia bir dasia mais tur fum joge inspiration fum joge dañ la ko collé wala ya ko tan wala num demé non dasia daasiya bi sama maa yi mu utaloon benn oto bu ñu naan daasiya. waaw do dem entraînement. ok ko yóbbu gars yi tam tu bi dasia dasia ah ani dasia bi. ok sa grand frère mo moo la utaloon benn oto marque dasia jox la ko pour nakoy koy entraînement. waaw. loolu moo andi tur bi. maanaam booy dem entraînement à chaque fois da ngay ñëw gaaree Dacia bi. waaw ñëpp xamee ma ko tamit tur nañu dem ba tur bi la quoi. Ah, yow tamit nga nangu. ndax may def qu'est-ce ma bu la neexoon boo dugg ci làmb ji nga indi Balla Gaye senior wala nga indi Modou Lo senior wala nga indi euh, Boy Sey senior wala nga indi leneen mais da nga ñëw indi Vieux Dacia. man moom dox ma si quoi ndax man moom sax nga dama gëm sama bopp. du ma xool tur jàmbur damay kere sama tur fi ma gëm loo sax damay kere sama beneen non quoi. Uh-huh. waaw di ko nuyu au passage sama idole sama xarit ñëpp xarit yow. ok di ko jaar suñu Pape. ndeysaan Pape Gora Pape Gora. Pape Gora loolu. Mm-hmm. nuyu ndeysaan keroog fekk naa ko jaale ko. daa def si man bu bëri moom loo di sama idole sama lépp. dañ ciy ñëw après sama conseiller quoi. non loolu dañ ciy ñëw après. aussi di nuyu waa Jaxaay am seen fay. Mm-hmm. Jaxaay. te on on on on mais booy sa baat bi mënoo ko yëkkati tuuti man loo may jaay ne da ngaa yaru nii nu mu demee noonu <laughs> ah mais bii wax la gars yi nag nu mu demee noonu maa ngi ñëw ngay wax di sëgg mais nu mu soo ko rek waaw ah, mais mais mais boo duggee ci géew bi des fois da ngay nekk beneen sens. géew nga wax xam nga géew fii bokkul. non mais xam nga la mooy sama problème ak booy yu mel. des fois nga ñëw bu fekkee ni ci gàllam mu nekk ni ko xam ne day sëgg du mën a wax kenn des fois boo demee làmb ja boo ko gisee mu mel ni ku ñu xattal parce que yow noonu nga mel ne nature yow ni ku la ku la gis nii comme ça danaan booy bi est ba tellement que xam nga discipline benn yooyu noonu mm-hmm. mais sa dernier combat bi yaa Kogna 2 la xattal doo mel ni beneen vidéo laa gis mais xam la làmb làmb daane suñu sànq moo jur fekk làmb waaw xam nga mbër nekk ci koñ mbër aareel la stade la moo tax ñu naan mbër ndax mbër soo nee sa sa sa biir koñ nekkal xar xaru yar yaru morom nga jox ko sa morom yaay noonu mais affaire ba arène ba boo demee arène ba nekk beneen beneen sant waaw soo nee arène bi nekk ko mbër d'accord léegi bala ñuy ñëw ci arène bi euh, dama bëgg dellu si waat ci sa début de carrière déjà kañ la commencé takk ngeen du bëri euh, sama carrière yàggut wala 2018 la sama premier combat man ak booy Ambila. non non non waxuma arène bi dama ne la bu ñu sàcc film bi nañu ñëw ci mbapat bi kañ nga talee kañ nga commencé takk ngeen ba di bëree di ngay mbapat. moom mbapat moom boo sàmm bu ñu naan Aziz. Aziz moom bëri mbapat. loolu yàgg na di bëri mbapat mais moom moo koy xool muy ñëw. waaye moom nag kaay la mbapat ndax daa teel a bàyyi quoi. loolu quoi koy xool Aziz. yaa ma gën a xam. Eh, dégg moom gën a def mbër. booy sëy de bokk na ci li tax ma déplacé wu parce que daf ma woo téléphone. ne ma demal seeti vieille Dacia. booy sëy de daf ma woo téléphone ne ma Seydina il faut nga dem seeti vieille Dacia ma ne ko loolu y' a problème parce que c' est nous dans nous. ñun la ci suñu biir mais Seydou day toog sa ginnaaw des fois di xam rek di tegal ay bagages yoo xam ne da lay leen ne kii am na yéene nga avancé. non kooku amoo amoo fekk. moo def mbër booy te ku xam VDHR rek pour na mën naa ne boo say déglu moom kooku dañ cee bàyyi. bokk na ci bokk na ci waaw moom moo moo tax. et puis say jour combat ni muy la noonu la waree moo tax amuñ fay am quoi. di ñaanal ma toog ba yor koran bi su ko defee seen tubaab.